halaan bikum ñiy xeex xàq ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal fa ñoo mer ba futt jëmale ci DGE mi nga xamante ne fa bañaat ne du jox ay Daffé fiche parrainage yu Ousmane Sonko ya ginnaaw bu mu fa delluwaatee démb fañ na ko xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa doo fi dugg bañ di jox ay fiche doxal fooy Vox Populi ne waa DGE nag fa ñoo leeral xana lan moo tax ñu bañ a joxe fiche yi Ousmane sonk ah, yaw seetal fa ñoo wax ne xàtteeb Ousmane Sonko bi lañ amaloon Ziguinchor jeexagut donte attekat ba jox na dëgg Ousmane Sonko waaye nguuru Sénégal fa ñoo dugal ab recours clamé maanaam fa ñoo war a dem cassation comme amagut nag atte boo xamante ne jeex na tàkk définitive moo tax mënuñoo joxe fiche yi Alioune Tine bokk si ñuy xeex ak yelefu doomu aadama ne Thiendella Fall yow moomu jiite DGE yow fañ laa war a kajji dàq ndax loolu ngeen wax noonu te def ko du dëgg du yoon te jaay doole gi maa tay gi gi état bu Sénégal nekkee mu toll ni fa jégg dayow kenn mës ta gis li source ay yéen a bi waa Pastef yi fa ñoo mer ba fut ñaawlu li yow fa ngay xool fa ñoo wax ne DGE moom du cëram muy xool recours buñ dugal ak atte bu jeex ak bu jeexu loolu du liggéeyam de déedéet cëram mooy bu jotee kayit bu koy sant mu def rek fa war a def te mooy kayitu attekat bi recours bi état bi dugal muy pourvoi bi donte dugal nañ ko loolu terewut li attekat bi dogal moom fañ ko war a jëfee loolu la wax naan le pourvoi n'est pas ba tax alintin ne DGE fañ faa war a fal koo xam ne fay tëdda njaaxanaay du far fenn si du fa ñoo wax ne nañ dàq ca ndeelefaal jëlee ko fa laa nii gars yi leen di attaqué di ñaawlu lii ñu def les secours yéen kaay ne lii kenn fa ko warta nangu ndax fa xelawut ak jaay doole la moo tax ca Ndella ma ko jiite gars ko yàq lu mel ne xame de indépendant yéen kaay ne Birahim Seck moom fa wax ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu réew mi moo war a jël responsabilité jox Ousmane Sonko ay fichier am fa jir yéen kaay ne waa DG yi ñoom wax neen seen dëgg ci yëf yi turbine yéen mel ni ca joxeñ baaraamu tuuma nen lu ñu njaag mooy njaag ba tax le quotidien yéene kaay ne diggante Sonko ak DGE fi mu toll nii ci mbiru fiche yi carte ga fa faa jaxasoo si du quotidien mel ni ko daan ko fii dara fi jaxasoowu lépp a leer attekat bi joxe na dogalu atte na DGE defal mu bañ te nag fa war a def <laughs> maire leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Amadou Ba candidat benn bokk yaakaar njiitu jëwri ni wàcce na diwaanu Ndar fafaa dem mbooloo mu bëri teeru ko info yéen a kaay ñu ko xamal Ndar ak Louga mobilisation bu mag lañ def direct news yéen a dëggal ko wane Amadou Ba photo mu nekk ci biir mbooloo mu bëri ca diwaanu Ndar réew mi yéen a kaay waaye ba mu yegg fa tàmbale ay digge de danaa leen defal lii danaa leen defal lii enquête yéen ko na moom kay ay la fa diggee ci tournée économie ba muy diwaanu ndar wàllu école yaak jafe-jafe yaak ak liggéey yoo xam ne nee na fa nar a door jëm ci tabax hôpitalu Alim Badara Cissé foofa ca diwaan ba benn bokk yaakaar nag foofa wane nañ la nekk nañ benn le soleil yéen a kaay na diwaanu ndar kay xam na lu bëri luñ mën a sukkandiku ba suqali diwaan ba leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na Karim Wade dëgg-dëgg xam na ay problème yu bari yu mu war a régler ngir mën a nekk président bu Sénégal ndax bala nga naan naam fa nga fay nekk fa ngay xool Karim lañ ko Sénégal te ba léegi fayagut loolu dafa ko war a fay pour mu nekk candidat ñu ne déetawaay Karim Wade beneen problème bi mu am mooy bi mu gëjee réewum Sénégal kenn xamut ban la fa yàgg lool beneen problème bu Karim Wade amati mooy ne làkk olof bi sénégalais yu bëri di wax moom fa koo déggut yow léegi nooy wax ak sénégalais yi ñu fal la président te yow déggoo làkk réew mi loolu kaa la faneen fu am kaa muy benn bokk yaakaar bu diwaanu Kaolack ndangaan ka ñuy wax Moussa Fall benn bokk yaakaar intaha c'est fini léegi dem na fekk ji Boun Abdallah Dionne a kaay ñu ko xamal la na ca kilifteefu loterie nationale njiit lu bees la nag ma ngay wane boppam si du quotidien moom fa ñoo xamal ne ndakaaru njaay fi mu toll tàngoor wu métti ma nga fa de leneen lu nar a tàng mooy combat Ama Baldé Modou waaye seen face à bi tey lañ koy amal ca TFM sunu lamb yéen a kaay ne ay bi jàkkaarloo les se ko yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne communicateur traditionnel bi ñu jàppoon tuumal ko ne fa tëddee xale bu am fukki ñett ca diiwaanu Pikine yéen a ngi koy ñu doon wax naan diw laa kaa laa këla ñu ko tegee loxo ñu a tëj kaso nag boobu bu ñuy wax Moussa Baldé moom daal ndeke fa doon tëddee ñaari jarbaatam ku xam juróom-ñetti at ak ku am juróom-ñeenti at aay fa waxoon nag ne lii ma leen di def bés bu ngeen ma boolee wala ngeen wax ko faa leen di rey xale yi tiit noppi mu nekkal ko ci rek ba benn bés fañ ko bett ca douche toilette dañuy sangoo mu nekkal ko fa ak jarbaat ba famille bi nag biñ ko bettee après fañ doon mës-mësal affaire bañ mu feeñ sàng ko sutura yëf ya mujj kalaate na faax na réewum Sénégal kaay bi ne fanweeri million ak ñett ci ay liitaru sàngara moom la sénégalais yi di naan ci benn at ba pare ñu ne suñu réew mii yi ay jullit loolu foo nga ne jàmm la ndaw ñi nag ba ci élèves yi ñoo gën a fës ci naanam sàngara mi quartier bi ëppër ay baar yu ñuy jaayee sàngara ci Sénégal xam nga fan la Grand Yoff Ndakaaru ñeenti téeméer quatre cent baar yu ñuy naanee sàngara moo fa xam yéen bi ne jeex a gudde ñiy dee ci réew mi Sénégal gii téeméer boo jël ñaar ne sàngara ak ñi mel ni moom ñoo koy joxe hmm, waa ma ne ay man faawaaroo ti moo xam ne presque ñëpp